asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi di leen nuy nuyuwaat bu baax di leen ziar di leen bëggee yéen ñuy suivre sur wasaare lamb wasaare TV ah di leen bëggee waat nag bu baax a baax ah, bala ñoo nag ah, wax dëgg yàlla commencé li nga xamante ne moom mooy suñu waxtaan dafa am loo xamante ni moom moo fi am démb ñu koy jaale nag waa àdduna di ko jaale monde partout di jaale ñëpp muy ki nga xamante ne moom moo fi jóge démb muy suñu tonton Pape Diouf ñëpp nag xam nañ ne ah, wax dëgg yàlla kenn du nekkul koo xamante ni benn nitu ordinaire la ndax. Euh, su ma juumul euh, Basirou euh, nekkoon na fi ki nga xamante ne moom mooy président Marseille mu nekk nag koo xamante ni waxuma la sax mais Sénégal cër bi mu bi mu jox euh, Sénégal ak ni mu ñu doon défendre macha allah di ko ñaanal rek euh, fi mu tëdd dàqal ko fuuf fu mu jóge te am nañ ci yaakaar parce que seede yëpp benn la beneen bi tamit mooy ko la ñuy wax rek coronavirus mu nekk feebar boo xam te ni dafa lëmba àdduna li may wax nit ñi nelawatuñu nit ñi yandooratuñu lekkatuñu ndax feebar boobu noonu di ñaan yàlla feebar bu jóge fi ci barki Seydina Mohamed ndax ndax dëgg yàlla feebar ba mu fi duggee ba léegi mu ngi soog a ñu ngi ciy soog a am dese te ñun ñëpp kenn ku nekk dafa doon wax wax dëgg yàlla comme que moor amagu fi mais nag bi moo nekk suñ première cas di ñaan yàlla rek mu yem fi ah, di nuyu nag bu baax a baax tey ki ma fekk si muy champion boo xam te ni kenn du ko présenté kenn mu nekk koo xam te ne alab lébu muy ama neex nekk koo xam te ni su bëree mu neex su feccee mu neex ñu gëj koo gis nag mu bëree wax dëgg yàlla gaa yëpp nam nañ ko euh, looloo tax nag tey ñu am contentement ànd ak équipe bu wasaare bi euh, ñëw fas yéene waxtaan ak moom ci li nga xamante ne moom mooy làmb ak année blanche mu def ci moom la walul am na ay combat yoo xamante ni ñu ngi koy dégg ci moom am na combat yoo xamante ni wax dëgg yàlla ñi naan ama neex moom mooy delloo avance ñi naan ama neex moo bëggut a jox ñooñu chance loolu yëpp dinañ waxtaan ak euh, ci moom pour waxtaan bi gën a yaatu dañ koy bàyyi mu nuyoo nuyoo internet yi nga xamante ni ñoo koy seetaan ñu àgg li nga xam te moom mooy waxtaan bi ama neex nuyu. waaw salaamaaleykum maa ngi sant yàlla bu baax di julli Seydina Mohamed sant sama ñaar waajur eh, di sant eh, sama mbokku lébu di wax bisimilah ñu commencé yàlla defal ñu jàmm defal ñu tawféex waaw ñu ngi ñaan nag li nga xamante ne moo am si réew mi muy feebar bi ñuy wax coronavirus ñu ngi ñaan yàlla tegg ko si àddina bi ci barki alxuraan si barki Seydina Mohamed. ndax feebar bi doon na feebar boo xamante ni métti na sa activité yëpp da nga koy arrêté ngir feebar bi waaw boobu nag liñ si man mooy ñaan sunu borom rek a man kenn mënul ñu yoxal ji ñaan sunu boroom yàlla saafara ko mu dañ si barke Seydina Muhammad ñii nga xamante ni moo leen dal yàlla wëral cëri wëral lépp ba ku nekk nekkaat say activité waaw ah, beneen bi mooy ñu koy wax ñu ngi ñu ngi ñu ngi massawu Sénégal di massawu France di massawu àddina mm. suñu kilifa gii fi joge muy Pape Diouf mm. jullit donc ñu ngi koy ñaanal yàlla yërëm ko xaare ko àddina waaw ah, képp ko mu fekk yàlla yërëm la si bak Seydina Mohamed waaw loolu daal moom lañu amagul pour wax ko daal nuyoo bi am na solo ndax moom porteur de voix la il faut que tamit ndax moom day sensibiliser il faut que tamit moom mu dugg ci loolu ah, ama neex dégg nga coow arbitre ak waa CNG. waaw arbitre yi ak waa CNG mais loolu ma du ma si wax. ndax lan mais yoo xam ne tey porteur porteur de voix nga. te xam nga te xam nga non déglu ma ama neex nag danga may déglu xam nga Sitor bu musul an bu musul bu la musul arbitré. mas naa waaw Sitor nit ku baax la. nit ku ko rajee à vie niñ ko dàqee à vie loolu moom du yoon moom. ok ki loolu la yaakaar si la dundal ak njabootam. mais loolu euh, dëkk bi daa am yoon. dëkk bi Sénégal. ak Malick sa copain. dëkk waaw dëkk bi daa am yoon. Mhm. dëkk bi na yoon taxaw rek la situation boobu. comme yoon c'est-à-dire nit nekk si mbir vingt ans vingt et un mhm. nga xëy nga ne ko dàq naa la. dëgg la moom moom xanaa Aliou ko nekk war a dàqa. Mhm, dëgg la. mooy li ma doon wax sànq Aliou Sall sunu papa la. ñu moo ñu bokk njaboot nit ku baax la. mais liy war nañ toog ñu waxtaan. ok réeroo amul ñàkk waxtaan a am. nañ mbooloo mbër yeex promoteur yeex arbitre ñëpp toog. Macky Sall recevoir nu président ñu toog ñu waxtaan ñu trouver solution. Mhm. àddina buy dox te waxtaan amul dara du dox. dëgg ni ma la wax ne nit ku dul xalaat mhm. am na situation bu tolloo foofu da ngay oo ñi nga ŋànk oo ñi nga xam ne ñoo ŋànk réew mi ñu toog ñu waxtaan. Mhm. ndax loolu mooy àddina. waaw réeroo amul ñàkk waxtaan am. nañ toog ñu waxtaan. man même bu ma tooñee nit sax damay oo sumay kilifa na leen ah kii de dama ko tooñ. oo leen ñu ànd ax man ma dem baal ko axa mhm. ñu toog trouver solution. Mhm. terrain entente am. niñ def euh, sa ñaari mbokku mbëri Alioune Seye ak ñaq jaay ñu loolu rafetlu nga ko niñ leen ajee. waaw bon non loolu dinañ leen bàyyi ndax ñoom ñoo ñëpp ay champion lañ dinañ leen bàyyi mhm. peut-être. mais est-ce que niñ defee. waaw comme comme comme ak ñaq jar yu moom ak écurie non non mais peut-être xam na mooy li ma la wax rek. àddina gis nga àddina li ëpp importance si àddina mooy yar discipline lu mu la mayoo lu la ko xañ. man bëri naa ba bàyyi bëri ba bay waaj a bàyyi kenn. waaj a bàyyi da ngaa xaaj. waaw non waxin la rek. ok waxin la quoi. Mhm. kenn mosuma aj mhm. ñaar yoon lañ mos a dagg sama xaalis. muy combat Lac Rose ak combat Ama Baldé. ñaar combat yi gën a sa combat. waaw lañ dagg sama xaalis mais xaalis boobu baalu ma leen ko de. waa CNG. Eh, mu benn bi 900000. Ah. benn bi 1 million 500. baaloo leen ko. ba <laughs> yow waxuñu la loo def. xeex. si biir géew bi ba génn saako yi. Ah. ña dagg la. bu fekkoon dama arrière sama bopp ñu mën a wax. Mm-hmm. bu fee wala bu fee waaye loolu gis nga làmb ji. saa li war a wax si làmb moo bari. Mm-hmm. man daal maa ngi sant di gërëm. mais bala ngaa sant di gërëm. di ñaanal nit ñi. mais feebar bi ndax joge fi. amoon <laughs> feebar bi. billaay sonal nañu na fi joge. moom coronavirus. waaw na joge demal. nga ah. def feneen. amoon sonal nga nu bàyyi nit ñi. amoon ñuy ñaan suñu borom nag. <laughs> démb si guddi lañ ma la ma sama copain bi zo envoyé benn benn audio. Ah. ma gis ndeysaan da baax. Ah. sey maam Abdou yal na yàlla yokk ay. allahumma amiin maam Abdou Aziz si da baax. kenn du maam Abdou. Mhm. mu ngi siy ñaan ba siy wax. Mhm. naan coronavirus. Ah. billaahi di si ñaan ba siy wax. démb si guddi maa ngi koy déglu. ndeysaan nga xam ne kenn du maam Abdou. gisoon na li yëpp da baax. yal na yàlla lekk yokk leeram te taas ñu ci barkeem mais euh, am 109 xam nga 109. yooyu borom jamono Serigne Saliou. 109 gërëm Maawa Ndaw. Papa Gueye maa ngi koy gërëm sama. ama neex gars yi waxoon nañu nee ma soo demee tey dalay daw. waaw Papa Gueye maa ngi koy nuyu sama. xarit mais gars yi neeñ ma yow nangoo confronté ak man. na ma wan ñëpp maa leen di gërëm. Maawa Ndaw sama tur boos sama tuddee Maawa Ndaw turandoo sama benn copain boos Maawa Ndaw la tuddee doom ji mu def lu rafet acte bu rafet acte noble la def na ay nit bu ñuy ànda dañu war a yéenante jàmm te ñoo jàmm depuis xale ba léegi ba mu am doom tudd ko kon loolu dañ koy rafetlu wala déet waaw loolu la demee. xam nga man ragalu ma la. waaw xam naa loolu. mais ama neex tey nag may la sax. non xam nga sama nag may waaxu. xam nga tey. Mhm. dama ñëw nga ne ma tey du ma la may dara affaire yooyu noonu. mais garaaw loolu rek baax ndax dama laa fekk si émission bi il faut mu neex. waaw mais am neex. émission bi il faut mu neex émission bi yow yow rek moomoo ko. man damay wax yow ngay wax. mais li ñuy wax yëpp day teg ci ordre mais yow yaa jaxase émission bi yëpp. non jaxasewu ma ko. Amanekh 109 xam nga ko. fa mooy xam xamoo 109 ah yow yaa dégg nga français ak euh, tey euh, waa CNG ñu bari dégg nga gars yi. Mhm. sa mbokku mbër yi ak gars yi ko ŋànk ñu ne Alioune euh, nañ wax gars yi doyal nañ ah. <laughs> <laughs> su may posé sax question du ma bàyyi. maa la koy posé. moo ko. waaw gars yi nee nañ Alioune na dem. mais Alioune dem dépendre wul si noonu. kii nga fi teg moom lañ mooy wax Anissa na dem. ok koo fi ah, moo ko fi teg lu gouvernement. état mhm. moo ko fi teg. gars yi bu ñu waxee na dem tamit te mhm. euh, état waxul mu dem tamit dañu solo suñu bopp. man na dama wax na dem. ndax lan ndax mu wax ko waxee tamit jarañul dara. ok mais yow bëgg na mu dem. non loolu vie privée la man. non question non ma ne. Ah. sama vie privée man du ma ko waxee. Aliou Sarr nekk na si CNG bi 24 ans. teguñu ko fi buñ ko waxee ne Aliou na dem. te état waxul na dem. dañuy solo suñu bopp amul sens. Mm-hmm. balaa càkk yow nga toog rek. Mm-hmm. jàpp sa sel. mais tey ñu bari. Mm. da nga gis gaa yi di cité commencé di cité gis nañ sa xarit Keba Kanté moom mu ne instant bi mm. dafa bëgg chaise bi. nga dégg ki nga xamante ni tamit ah nu mu ah, sax yow am na si Kéba Kanté bu doomu Tyson ñu bari tamit yow dégg nga gars yi naan Tyson <laughs> yow pour yow ah yow sa vie quoi. mbër mën naa jiite CNG. état mooy xool ki ko neex. mun a la Papa Yada tey moom lañ choisir bu mu ne CNG. comprendre nga. Uh-huh. waaw noonu la demee. léegi yow état tey bu choisir xam nga yow tey da nga porte de voix la. Uh-huh. te da nga bokk ci làmb. Uh-huh. est-ce que tey léegi làmb toll na foo xam te ne da ngay jékki-jékki ñu choisir leen kenn rek ne ñii ñooy jiite. waaw mooy li dama lay laaj rek parce que. waaw très bien kon nag am na waaw très bien xam nga sànq da nga wax benn wax bu am solo. Mhm. nga ni dañoo war a recevoir ñun ñëpp ñu toog waxtaan. comprendre nga léegi léegi soo jekk soo waxaatee ne. Mhm. kon état mooy jël xool ku ko neex kon dafa mel ni comme si c'était que ni yow tey ama neex tey bu ñu ñëwoon fi sax n'importe qui da ngay d'accord. déedéet man moom xam na xam nga état dafa doon loo xamante ni ñun ñëpp état moo ñu. mais est-ce que gënoo leen gën a xam làmb ji ne ma rek déglu ma. acca da nga yaakaar ne koy nuyu en passant. da koy dund. sax xam bu mag bu amee nii président day toog seetaan. déglu da koy dund 100 pour cent. sa biir seen njaboot mu leer na yow ñi ñëpp yaa leen yële mhm. da ngay defar Mm. rek muy rafet di mm. baax mm. ministre sport bu ñëwee taxaw ak li mu defal sport waxuma la li mu defal làmb de li mu defal sport yëpp ministre sport rek noonu bu ñu naree def dara war nañu woon a xool si Matar Ba ministre sport li mu sonnee si sport man de ma Matar fu ma oo fu mu ne ma fekk ka fa ah. mooy Mame Boye Diao ak Ibrahima Bari ay ma defal lu ma doomu aadama masul defal ah. Ibrahima Bari mm-hmm. moo ma defal lu ma doomu aadama masul defal kon kooku aw ma fayam encore une fois dama koy sant di ko gërëm di ko ñaanal est-ce que comprendre nga. Mhm. mais état dafa doon loo xamante ne képp suy wax na nga wax loo xamante ne bu ëllëgee ñu bañ la fëgg. ok moom moom moo nu ilif. Mhm. moom moom sport moom moom lépp. Mhm. mooy xool ki ka neex. mu teg la si bopp bi na la yow yaa ma doy. géral ma bu ma demee nag ba gisatuma loo xam ne doy na ma. mu teggi la teg keneen. noo gisee grand contre petit. yaa ngi koy wax nii rek mais bon làmba ji waroon na dépassé loolu sax ay. ndax ndax lan wax war a bëri seen biir jaxasoo. Mhm. yow gis nga ci sa bopp grand man maa ngi ko def grand contre petit. yaakaar ok ak boobu. booy bool bàyyi na bëre. ndax nga ne bàyyi na doom day fëgg la. leex nga ne booy booy bawal leex nga ne danga ne booy bawal bàyyi na bëre. non dara damay wax rek. yaa ko yóbbu yaa ko yaa tax mu <laughs> da ko gis États-Unis. mais daal ñu ngi sant yàlla. bu bala nga ne maay ñu ngi sant yàlla grand contre petit noo gisee yow gis nga ci sa bopp wala gisoo ci sa bopp. bu ma la tegaloon Balla Gaye tegala Tafatine Eumeu Sène Modou Lo ci grand contre petit ama ne kañ lay choisir. ci ñett ñooñu. waaw ci grand contre petit ah? xoolal bas nga ne kan nga choisir. tax nga choisir Tafatine. a bëgg a dafa métti de. métti comme àddina fii lépp a métti. mais tax nga choisir Tapha da nga ne moo xam ne xaw a nekk sa catégorie quoi. Ah, bala ay. moo gën a yomb daal. Tapha Tine moo gën a neex daal. Mhm. mais li may la yow doo ko maîtriser. mais li nga ni moom moo. da ngay dem nga laaj technicien yi. mais li nga ni Tapha moo gën a neex daal. waaw non rek laa mën a yem. comme ci bëre. xoolal bu dee ci cadre bu dee. kooku laa mën non non dañuy décortiquer ndax parce que grand <laughs> man sama yàlla moom la gën a nangu kay ñeneen ñi. mais États-Unis ak fii nii entraînement yi ban différence la non bari na foofu la lekk lekk bu baax. Mhm. lekk bu am vitamine. Mhm. sa mentalité dina réglé. Mhm. ndax ñi ñu bari doo leen gis. saal yi baax na. te danga nga am conscience tranquille da nga am récupération. ok da nga dallu. doomu aadama bu liggéeyee lu métti dafa war a dallu. yaramam naay. moo tax koo si gis bu demee ñëw. Mhm. day am yaram day leer. Mhm. day nekk si en bonne condition. Mhm. di leen nuyu bu baax a baax ah, Ramdaan maa ngi koy nuyu bu baax a baax sama góor googu noonu infra rouge ah, ñoom ñu ngi leen di bégee bu baax a baax ay ñoom dumbun mbëri nga xam te ne dañoo sàqi quoi dañoo sàqi dem bàyyi làmb ji mais ama neex yaa tax sax sama xel dem ci mbëri gis nañ léegi mbëri yu bari ñuy dem. mais addina moo àddina dem di toog. non wóoru ma ne ma nu. non dégg non dégg non ama neex rek may déglu xam nga nu ama neex dama ne la am na mbër yu bari tey mbër yoo xam te ne tey da nga en général États-Unis yéen nen ngeen ngeen ko defoon dem entraînement ñëw. bàyyi loolu ñu gis ne léegi mbër yu bari ñu dem foofu di mais dañoo gis ne mbër yu bari dañuy dem di nekk seen business. di liggéey. ku si am jabar. Ah. boo amee jabar kay mu la neexee nga toog. Mhm. mais est-ce que yow lan nga gis loolu day yàq làmb la non non ku si am jabar xam fi fii ku nekk suñu borom. Mhm. def na sa wërsëg fa nga koy jëlijee. ok kenn xamul fan la. Uh-huh. ëllëg. Mhm. tey ñun nu ngi duggoon ci làmba ñaan yàlla tekk si làmba jóg am si ay business yu rëy. Mhm. tey gis nga làmba ji ni mu commencé sooxee. commencé soox di ñaanal ligg lu ko laa tamit. ndax li uh-huh. ko dal. Uh-huh. yàlla teggil. ñaanal président gracier ko. président Macky Sall ñu ngi lay ñaan nga dimbali ligg te yàlla tax. nga gracier ko te yàlla tax. ndax am na lu mu ŋànk. jox na Modou Lo avance jox na Ama Baldé avance. Mhm. te askanu Sénégal ñëpp a ngi xaar combat boobu. Mhm. ñu lay ñaan yaay sunu njiit mhm. président. yaay sunu njiit. mag yaay sunu njiit. yow la fi yàlla teg nga yor réew mi ñu lay ñaan la dagaan nga dimbali nu te yàlla tax dañuy ñaan rek ay jaam rek lañ. te ne yaay sunu président yaay sunu njiit. sunu loxo jotul sunu digg ginnaaw yow yaay sunu njiit Macky Sall encore une fois am Matar Ba. lay ñaan rek nga teggul nu nattu bi dal lig la ko laa nga bàyyi rek mu sedda ndax li mu ŋànk bari na te ñi ko yaakaar bari na te yaakaar na ko nu ngi ko lay ñaan te yàlla tax nga deful na ko ndax xam naa ne borom xol bu rafet nga Macky ah, sunu yaay booy Marème Faye Sall waaw di wax sant yàlla émission bi neex na lu lépp lu ma si wax loo xamante ni lu baax la jàppal na sunu borom la lépp lu ma si wax loo xam ne lu bon la jàppal ne lu matul waaw man la di jégalu doomu aadama yi di wax pour que mu neex rek di ñaanal ñëpp jàmm di wax allahuma salli ala sayyidina muhammad wa sallim ah wasaare ah maa ngi gis ngeen a ngi développé de yàlla yàlla teg si yéen loxo rek ngeen gën a am seen télé bopp mm. loolu mooy jërë ñaan ah. di la ñaanal boroom kër di ñaanal sama waaj te mu am soxna peace and love. lii lañ leen indiloon ah ci li nga xamante ni kon niñ ko defee à chaque fois rek dañuy doxantu li may wax rek commencé guña ah dañuy dañuy fo rek lañ leen indiloon comme que yéen yéen a ko choisir moom ñu koy remercier bu baax a baax ndax ñëpp xam nañ ne temps amul mais da koo def rien que yéen li ngeen bëgg te nee naa lépp loo leen bëgg dañ ciy dox di ko béggawaat bu baax a baax moom Bassirou ah Bassirou Diouf l'infatigable le messi di ko wax yàlla jàmmam yàgg gis na tey nii rek lañ def ñëw ci géej ju toog waxtaan ak moom yéen internautes yi béggawaat nañ leen nag bu baax a baax ngeen am kon ni ma koy waxee rek Fatima kese mais di bëggee waat képp koo xamante ni rek yaa ngi suivre wasaare képp koo xamante ni rek am nga confiance ci wasaare ndax nee naa leen dofuñu te gis nañ lépp kon nag li ñu wax nag ah dafa xew coronavirus mu nekk feer boo xamante ni di ñaan yàlla rek yàlla fi jug ñaan yàlla parce que ñëpp instant bi la dox mais kenn ku nekk boo dox sax da ngay geesu sa morom yaakaar ni à tout moment kiy dox sa kiy dox sama kanam sax war na maa wàllu feebar boobu li may wax rek ab balaa la sànq ama neex wax na ko kilifa diine yi di ñaan yàlla ah, ñoom ñëpp di leen ñaanal yàlla gudd fan ak wér ñi nga xam te ne dañ fay jógee yal na yàlla yokk seen leer te tas ñu suñu barke parce que chaque jour rek la ñu waxoon rek moom mooy ñëwaat loolu la ñu indi kon nag gars yi ama wax na ko nañuy jaamu yàlla moom moo fi nekk di wax di yéenante jàmm yal na yàlla xol yi ñu segg ko mu rafet ndax instant bi àdduna jeex na pare te du dul jàmm-jàmm ko gën yal nañu yàlla may jàmm wasaare kese Fatima kese jaajëf sama cameraman Basirou